yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fukkeelu njàngale mi ak juróom-ñett yàlla rëcculoo na waa Israyil ca géej gu xonq ga nanu bamtu nettali yi weesu benn waa misra lan lañu doon jaamu ak di ko saraxeel yëf yi yàlla sàkk waaye jaamu wuñu woon yàlla ñaar kan moo jox luskat yi doole ngir ñu roy kéemaan yi Aarona ak Musaa def seytaane ñett ban atte moo tax na mujj bàyyi waa Israyil ñu dem deewu taaw ya ñeent naka la waa Israyil muccee ci atteb yàlla ci deewu taaw ya dañu rey gàtt wis deret ja ca la seeni bunt kër ni ko yàlla sante rey nañu gàtt ngir mu wuutu taawu kër gu nekk juróom ndax nit ñi mënoon nañu saraxe mala mu leen neex ngir musal seen taaw déedéet gàtt bi jëkk juddu ci ndeyam rek juróom ci nettali yi ñu jàng ndax seytaane daan na ci yàlla déedéet mbind mu sell mi nee na ci gàddaay gi saar fukk ak ñeent aaya ñaar fukk ak benn ba aaya ñaar fukk ak juróom-ñett gannaaw loolu musa daldi tàllal loxoom tiimale ko ci géej gi aji sax ji wolloo ngelawu penku lu metti mu dàq géej gi guddi gépp ba suuf si wow feeñ te ndox yi xàjjali ko noonu bani Israyil jaar ci diggu géej gi di dox ci suuf su wow ndox yi seq leen ndeyjoor ak càmmoñ di leen aar bi ñu ko defee waa misra dàq leen fasi firoona ak i saretam ak i gawaram ñépp jaar ci géej gi ca fajar aji sax ji tollu ci biir niir wa ak safara sa xool xarikati misra di leen tasaare mu daldi ngirool saret yi ba dox bi jafe lool noonu waa misra ne nanu daw israyil ndaxte aji sax moo leen di xeexal seen diggante ak waa misra ci kaw loolu aji sax ji ne musa tàllal sa loxo tiimale ko ci géej gi ndox mi dellusi ci waa misra ak seeni sareet ak seeni gawar musa daldi tàllal loxoom tiimale ko ci géej gi laata bët di set géej ga dellu fa mu nekkoon waa misra di ko daw waaye aji sax ji ba leen ci biir te ndox ma dellusi si mëdd sareet yi ak gawar yi ak xarekati Firawna yi duggoon ci géej gi di topp bani Israël kenn rëccu ci bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla rëcculoon na waa Israël ca géej gu xonq ga nettali bi mu ngi aju ci ni yàlla rëcculoo waa Israël ca géej gu xonq ga waa misra bëggoon nañu waa Israël dem ci lu gaaw ndaxte ragaloon nañu ne ñoom ñëpp dinañu dee yàlla wax waa Israël ñu laaj waa misra wurus ak xaalis waa misra jox waa Israël lépp li ñu bëgg boobu daanaka ñeenti téeméeri at jàll nañu gannaaw deewu yusufa yusufa gëmoon na ne benn bés dinañu dellu ca réew maleen leen yàlla digoon yusufa moo digle woon ne ñu yóbbu ay yaxam ca réewu kanaan musa jël yaxi yusufa yóbbaale leen ci réewum kanaan ngir suul leen fa waa israyil tollu woon nañu ay junni junni nit bi ñuy génn misra jëm réew ma yàlla digoon Ibrahima yàlla sàmm waa Israyil yàlla sàkk niir ngir mu won leen yoon wi ci bëccëg gi ak safara ngir mu won leen yoon wi ci guddi gi bi ñu toppee niir wi ay fan waa Israyil agsi ca wetu géej gu xonq ga ñu dal fa mëntuñu woon jàll ndax géej gi bi na bàyyee waa Israyil ñu dem xelam daldi soppeeku mu rëccu li tax mu bàyyi leen noonu mu dajale ay xarekatam ñu topp waa Israël yi ñu bare ci ñoom war ay fas ak ay saret ñu dab leen fa ñu dal ca géej gu xonq ga waa Israël yi xalaat ne dinañu leen rey ñoom ñépp ndaxte mënuñu woon rëcc fenn ñu tiit lool amuñu woon benn pexe ngir mucc yàlla ne musaa mu tàllal yetam ci géej gi noonu yàlla def géej gi xar mu am yoon ba ca weneen wàll wa ngir waa israyil jàll waa israyil jàll ba ca weneen wàll wa waa misra topp leen waaye yàlla tëjaat géej gi waa misra yépp daldi lab ci ndox mi yàlla daan na waa misra ndaxte ñoom gëmuñu woon yàlla ci kàttanam gu mag yàlla wax leen ne ñu ko déggalee du leen daan mukk waa Israyil topp manding mi jëm bërëb bi leen yàlla wax ñu dem fa lekk amul ci manding mi te tuuti ndox moo fa am bi nit ñi xiifee boole ca mar ñu tàmbale joytu ci Musa ñu bare ci ñoom tiit te joytu waaye yàlla jox leen lekk ak ndox ngir ñu bañ a dee ndaxte yàlla ku am yërmande la bës bu nekk yàlla wàcceel leen ñam wu jóge kaw asamaan waa Israël tuddee ñam woowu mànn mburu la doon saf suba su nekk ku nekk daan nga ci am lu suuf sa njaboot yàlla ne leen ñu sàkk ci lu leen doy ñaari fan ci juróom benneelu fan wa mu ne leen ca juróom-ñaareelu fan wa nañu ci noppalu ci mbaaxam yàlla doon na jox waa Israël bés bu nekk li ñu soxla mu am bés amuñu woon dara ci ndox yàlla wax Musaa mu jël yatam te dóor ci aw doj bi Musaa defee loolu ndox génnee ca doj wa noonu nit ñi naan ca jaloore yàlla mi boroom doole ji firaw na siiw ci àddina yàllay waa israel mu ëpp doole yàllay misre yépp fii la nettali bi yem am na ay laaj benn naka la yàlla doon wone waa israel fi ñuy dem yàlla wa mën na leen ak aw niir ci bëccëg ci guddi gi niir wi doon na soppaliku safara ñaar ci man réew la waa Israël dem ci kanaan réew mi yàlla digoon Ibrahima gannaaw gi mu dig ko Isaaxa teg ci Yanqooba ñett lu tax yàlla yóbbu waa Israël ci géej gu xonq gi. yàlla xamoon na ne Firawna dina topp waa Israël te kon dina won waa Israël ak waa Misra ne moom rek mooy buur te mooy boroom doole. ñeent lan la waa Israël def bi ñu séenee Firawna ak ay xarekatam dañu ragaloon juróom ndax waa Israël mënoon nañu musal seen bopp ci fiir Firawna déedéet juróom benn naka la yàlla musalee waa Israël ci fiir aw na dafa xar géej gi waa Israël jàll juróom lu tax waa misra mënuñu woon mucc ci yàlla ndaxte yàlla moo gën a màgg ñépp kenn mënulu bàkkaar ba noppi rëcc yàlla mooy aji doole ji juróom ndax mën nga mucc ci ateb yàlla ci say pexe ndax mën nga def ba mën a taxaw fa yàlla déedéet juróom lu tax waa Israël doon joytu ca manding ma dañu xiifoon te mar fukk lan la yàlla def yàlla may na leen lekk ak ndox fukk ak benn naka la ko yàlla defee yàlla dafa leen wàcceel man mu jóge kaw asamaan yàlla def na ndax génne ci aw xeer fukk ak ñaar ndax yooni yàlla benn la ak yooni nit déedéet yooni yàlla kéemaan lañu yan melukaani yàlla ñoo feeñ ci nettali bi ak naka lañu feeñee ci nettali bi yàlla kenn la amul moroom yàlla waa Israyil moo ëpp doole yàllay misra yépp gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla génne na waa Israël misra yàlla jox na leen lu ñu lekk ca manding ma yàlla génne na ndox ci aw xeer yàlla lu mu digee def ko yàlla génne na waa Israël misra ni mu ko digee woon Ibrahima yàlla mooy borom doole yàlla xar na géej gi yàlla musal na waa Israyil labloo waa Misra beneen yoon dinañu waxtaan ci fukki ndigali yàlla yi